fu sori ñëw teew ñu ngi nuyu eh, Cheikh Mouhamed na Ibrahim Niass waaye di nuyu di ndokkeel eh, Sayida eh, Aïchatu bint Cheikh di nuyu magam yi ma gis ñi teew fii Sayida na fii Sayida Maam Roqi ak doomam yi ak i rakkam yi di nuyu ñi fi jiitu woon di nuyu suñu rakk Oustaz Ahmed Boucar ñu ngi nuyu ñëpp daal di nuyu imam muntaqa fay jugee ba gambia waaye ñu ngi nuyu eh, alhaaj munir senusi bayoro bi nga xam ne eh, seyda mu ngi ñaan ñi gërëm ko munir eh, thank you for coming we are very proud to have you here to attend this occasion on behalf of Khalifa Muhammad Sanusi uh, Bayero, on behalf of Sayyida Aisha bint Sheikh, but I can not say on behalf of Khalifa and Imam and all the Hadar of Sheikh Ibrahim Yes, we welcoming you, very warm welcome to travel this long journey to come to attend this gathering on behalf of the Khalifa Muhammad Sanusi. We thank Allah Ta'ala for this relationship that was built by Iman Billahi Ta'ala, start from your grandfather, Abdullah Bayero, throughout your grandfather, Muhammad Sanusi, till this Khalifa, Muhammad Sanusi. We don't have nothing to say accept. Jazakumullah khairan. We're praying for the Khalifa. Allah fortify him. May Allah protect him. May Allah support all his effort that he's doing to help the deen, to help the tariqah, to help the fayda, at Tijaniya. May Allah take you home safe. May Allah bless all your footsteps. We thank you and we thank the Khalifa and all your family for the good things and beautiful things that you're doing for this family for the sake of Allah wa ta'ala. Thank you very much and may Allah take you home safe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gannaaw uh, loolu uh, dañuy dugg rek ci waxtaan bi Euh, waxtaan wi dañu wax ne jigéen ñi seen taxawaay ak seen rôle biñ mën a def euh, contre violence yi nga xam ne mu ngi am waaye buñ teeloon a xalaat sax dañu waroon a waxtaan ci jigéen ñi ak violence bi nga xam ne nii ci jigéen ñi seen bopp lay tàbbi bala ñooy xeexloo jigéen ñi sax violence ndax àddina yëpp tey loolu lañu wax euh, depuis 2008 bi nga xamee ne àddina bi dajee nañ ci Pékin def waxtaan ci affaire yu jigéen ñi boobu ba léegi mbootaayu xeet yi ñu ngi amal ay bés ba amal bés cinq novembre ci at bu jot dafay nekk bés boo xam ne dañ koy def pour xeex maanaam violence bi nga xam ne mu ngi am contre jigéen ñi ñu ci seen bopp loolu nag lim muy wund mooy ne àddina marhaban ñu ngi tatagal imaam Cheikh Tidiane ñu ngi nii di commencé waxtaan bi muy dugg si marhaban bi aleykum salaam wa barakaatu ne àddina bi boobu ba léegi ñu ngi amal bés yooyu nga xam ne dañ koy def ba ci deux mille vingt et un sax buñ demee tuuti ci biir waxtaan bi danañ gis lan la mbootaay xeet wi ak yan dogal lañ jël nga xam ne seen mébét mooy buñ àggee ci deux mille dana fekk ne maanaam violence bi nga xam ne mu ngi am contour jigéen ñi ci àddina bi danañ ko jeexal waaye mu mel ni thème bi dafay wax lan mooy taxawaayi jigéen ci daawa ndax loolu daawa la bi nga xam ne ni daawa islaamiya loolu nag dañuy eh, jaar rek bu gaaw ci jigéen ci taxawaay bi nga xam ne ni moom la ko lislaam jox te duñ dellu ci delluwaay bu sori boo xam ne ñëpp tey xam nañ ko ñëpp xam nañ fi lislaam fekk jigéen ak fi mu ko fi waaye xam nañ ne lislaam eh, ba yàlla waxee ne yàlla dafa teral دومي آدم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا دومي آدم رك لوخ نيالا دفكو جنلي غناو بكو بومكو تيرالي waralko nga بيننا ليالا na li آدم bind موشي ور adama أك mo ci war ci geejgi ci moom li mu bind tabaraka wa kooku doomi aadama boobu yàlla wax ne moom la gënalee góor ak jigéen ñoo ko bokk ba nga xamee ne yàlla wax ne yaa ayyuhan naasu inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu inna akramakum inda allahi atqaakum yàlla dafa wax yéen nit ñi yàlla moo leen bind ngeen tukkee ci góor ak jigéen ma def leen ngeen di ay peuple def leen ngeen di ay euh, xabila ay giit ngir ngeen xamante mu wax nag ne ku gën a baax ci yéen ku gën a tedd fi yàlla ci yéen mooy ku gën a ragal yàlla moo tax dafa am loo xam ne léeg-léeg nit ñi dañ koy jaawale xiwaama bi yàlla wax ci góor ñi rijaalu qawaamuun ala nisaa bi ma faddala allahu baadum ala baadi dañ koy jaawaleeg gën a teddi fa yàlla fekk bi yàlla waxee ne góor ñi ñooy jiite ci li yàlla gën a le ñenn ñi ci kaw ñenn ñi gën a le boobu dugut gën a le gën a ragal yàlla waaye gën a le ku nekk rôle bi nga gën a man yàlla jox la ko loolu lay tekki moo tax ki gën a ragal yàlla muy góor wala muy jigéen ku gën a ragal yàlla rek boobu moo gën loolu nag tekkiwut ne maanaam muy góor ñi muy jigéen ñi ku ci nekk rek am na rôle bi nga xam ne mooy sa rôle principal bi nga xam ne moom la la yàlla jox nga xam ne lii yaa ko gën a man boo ko mënut keneen wutu la ci kër tim am na loo xam ne mooy rôle principal bi nga xam ne moom la yàlla jox euh, góor ñi te terewul ne rôle boobu mën ngaa fonte kër yu bari da nga fekk ne jigéen a koy def am na tim rôle principal bi nga xam ne moom la yàlla jox jigéen ñi ñi war koo taxawee ci famille bi nga xam ne bu baaxee kër gi baax bu kër gi baaxee dëkk bi baax bu dëkk bi baaxee société bi baax bu société bi baaxee euh, réew mi baax loolu am na ci jaani boo xam ne nii dara imp pour que importance te moom mooy rôle principal bi nga xam ne nii moom la yàlla jox jigéen ñi ci ci société bu mën a nekk. kon góor ñi ak jigéen ñi ñoo emoo ci bind ndax. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ñoo emoo ci xormaay dund emoo ci xormaay dund mooy lan ku rey benn góor te nga tey ko ak ku rey benn jigéen te tey ko atteem ci lislaam mooy ñaar ñoo ñëpp ku nekk dañ laa war a rey bu ko defee dana am ñoo xam ne dañ indi foofu beneen atte la waaw lu tax léegi ku rey jigéen te da ko te tayoo ko wala ci njuumte wala dañ laa baal wala léegi nga war a ñi nga fay li ngay dédommagé mu nekk genn wàll li ngay dédommagé góor boo ko reyee loolu da ngay xam ne sabab bi duut sabab bi xooluñ ci ñoom ñaar bakkan yi ku ci gën a foor ndax buñ doon xool ñoom ñaari bakkan yi ku ci gën a foor boobaa ku rey góor ñu rey la bu boobaa ku rey jigéen duñ la rey waaye ci buñ demee ba nga xam ne dañuy dédommagé bu boobaa loolu dañuy delluwaat ci fi jugee ban vide lay bàyyi ci famille bi ak ban jafe-jafe ndax euh, borom kër gu jugee ci famille yi jafe-jafe bii kër ga di am la plupart mooy gën a métti bu fekkee ne euh, yaayi famille bi moo fi jugee ànd ak ne am na yaa yoo xam ne peese nañ euh, fukki baay ak ak juróom waaye li ma bëgg wax ci loolu mooy ne ci seen dund ak valeur yi dund ñoom ñoo ci am amuñ ci benn ute seen valeur yi ku ci def yàlla fay la ba tey ñoo ci am fa stajaaba lahum rabbuhum anni laa udiyu amala aamilin minkum min zakarin aw unsa baadukum min baad yàlla nangu na leen ne man yàlla du ma sànk jëfi koo xam ne dafa jëf muy góor muy jigéen ku ci jëf lu baax rek ma nangul la ko ndax góor ñi ci jigéen ñi leen jugee jigéen ñi jugee ci góor ñi naka wa man yaamal min alsalihaati min zakarin aw unsa wa ulaayika yadxuluuna aljannata ولا مؤمن ولا ولا يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا ني ني دوغ الجنه تا دوني لن واني لو امني صح ا فيس بوبو nga xamne mu ngi ci itandar mbay man amila صالحا من ذكر او انثى او مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون بتا يالا واخنا ku jëf lu baax muy góor muy jigéen fekk yaa ngi gëm yàlla yàlla dan te yàlla dana la fay sa jëf nu gën a rafet ni nga xamee ne mu ngay jëf loolu tim nga xam ne kon góor ñi ak jigéen ñi ci buntu jëf lu baax am lu baax ñoom ñoo ci am ci buntu euh, dund ñoom ñoo ci am ci buntu orma ñoom ñoo ci am ku ci gën nag fa yàlla toujours rek mooy ki nga xam ne nii moom moo gën a ragal yàlla comme ni ko aaya ji waxee nag mu nekk ay ay textes yoo xam ne euh, tey jii àddina àgg na ci ay textes yu yu yu yu kawe yoo xam ne ñu ngi koy jox jigéen gannaaw bu ñu leen tooñee tooñ yu métti waaye textes yooyu boo demee ba fekk ba ba gis Europe ba nga dem ba Amérique nga gis ci biir dund danga xam ne ndax textes yooyu ay textes rek la wala ci dund jigéen ñi ñi ngi koy ñi ngi ñi ngi jànkuwanteeg euh, coono yi nga xam ne ñoom la ñuy jànkuwanteeg ba tey ñi ngi jànkuwanteeg coono yoo xam ne ci àddina doo xam ne euh, euh, doo gëm sax nde coono yooyu mu ngi am ci àddina ba léegi ba nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi euh, euh, feeñ di euh, wax dayoob jigéen naka la toll di wax ne na sax mu ci ndëggu ron ndëggu ndey nit ñëw na ci moom ne ko damay jihaad mu ne ko ndax am nga yaay mu ngi dund mu ne waaw mu ne ko demal nga jihaad ci moom jamono boobu fekk na France ñi ngi am ay jotaay yoo xam ne werante ndax jigéen nit la bu am rooxo comme góor wala amul rooxo nga xam kon fan lañ toll waaye lislaam euh, walahunna mislu lazi alayhinna bil maarufi li am ni liñ def rek ci lu baax loolu la ñuy am bu góor amee darajaay amee xiwaamati kër gi loolu tegtewut tegtelewut gën a jege gën jege yàlla ndax bu fekkee ne yàlla dafa wax ne góor ñi ñooy amee idaara kër maanaam ñooy ñooy jiite ci li yàlla gënale ñenn ñi ci kaw ñenn ñi ndax xam nga ne góor ni ko yàlla bindee eh, jëmmam ak ni mu war a taxawee ni jëmmam attene coono jëmmi jigéen attene wu ko coono mu war a amee dépasse war a joxe eh, can te jigéen ji eh, soxla soxla soxla jëkkër comme ni mu soxlaa jabar ba pare yàlla teg góor gi ne moom moo war a joxe dépasse moom moo war a euh, défendre famille bi loolu tim fekk na famille ci seen bopp tëral na nañ ko seen bopp ndax bu guddee bu amee lu tiitlu rek loo xam ne dafa fëgg ci kër gi rek alaaji jugal ngay dégg alaaji jugal te alaaji ñemewu te wax ne ajaa jugal bu alaaji waxoon ne ajaa jugal loolu àddina bi yëpp danañ bu ñu nekk euh, xastaate boo xam ne moom lañ koy xaste kon boor boobu yàlla daf koo jox góor ne moo ciy jiite bu demee boo demoon ci kër gi fokk na góor gi li ko yàlla jox ne moo ci jiite manu ko te mu ngi am yàlla wax ne ko ne moom moo war a joxe dépasse am na kër yu yoo xam ne jigéen ñu baax yu bëri ñoom ñooy joxe dépasse parce que kii moo ko war a joxe mais manu ko mais kii ko man ba léegi daf ko war a def waaye jigéen yàlla tegal na ko beneen loo xam ne nii moom moom mooy rôle bi nga xam ne moom mooy essence moom mooy cosaan nga xam ne moom ci tabiaam daf ko man yàlla moom la def ne moom mooy ëmb moom la def ne moom mooy jur moom la def ne moom mooy bambaane bu li jigéen man ci xale bi nga xam ne nii mu ngi door a juddu boo ko joxoon benn góor benn guddi rek mun naa dof góor yi gën a am xel boo leen joxoon benn guddi rek ne ñooy gar de xale boo xam ne nii amagut juróom juróom-ñaari weer ak yooyu kooku foofu mën naa jaare àddinaam tukki te jigéen ñi yàlla préparé leen ba nga xam ne mën nañoo def loolu te liggéey boobu nga xam ne nag moom mooy cosaan ci seeni liggéey ku ko xeeb da ngaa xamut lan lay def ci société ndax mbaax yëpp mu ngi commencé jugee ci ci ci ci xale bi buñ ko bi bim bim biñ ko ëmbee bim juddoo sax yaayam di ko teg ci kawam muy euh, tàngaari yaram yaayam di dugg ci moom loolu am na leneen lu muy def ci moom am na mbëggeel bu muy def ci moom am na euh, euh, mbaax goo xam ne daf koy def ci moom am na lu koy bàyyil muy fàttaliku loo xam ne nii dafay tax bu génnee ci mbedd mi xam ne am na kër nam ma bëgg dem ci kër googu kooku mën naa éviter dem ci kaso loo xam ne xale bu amul loolu du ko éviter loolu nag ku ko xeeb li nga xeeb xamoo ban rôle la am ci dimbale euh, dimbale société ndax xam nañ ne euh, jigéen ñi seen influence ci xale yi mat na trois fois influence yi seen i bàyyi ci kër yi nga xam ne góor ak jigéen ñi ngi fa nekk di di dund bokk ko rawatina nag boo demee ba nga xam ne boo génnoon léegi dem ci ñi nga xam ne tey ñu dañoo wax ne ñoo libéré jigéen danga gis ne góor ñi ñoom amuñ jot ci loolu jigéen ñi ci góor góorlu amantuñ jot ci loolu seen xale yi dañ leen di yóbbu ci ay babysitter ñoo leen di amee xale boobu vidd euh, na yëgut yaay yëgut baay am nañ terewul na jigéen mën naa liggéey waaye na fekk loolu bu mu dammat li nga xam ne nii moom mooy cosaan ci ci dundam moom mooy liggéey bu bu bu bu bi nga xam ne société bi daf koo soxla te kenn gënul ko ko man euh, fekk mu ko man moom moo ko war a def bu ko mënee booleeg génn liggéey ak def yeneen jàng xam ndax jigéen ju jàng dégg nga jigéen ju xam kooku nim mu mën a dimbalee doomam pour mu baax kooku ku jàngul dara euh, du ci du ci àgg moo tax euh, yarab yaay jooju nga xam ne nii mooy jege xale bi di ko wax mooy def ci moom jàmbaar mooy def ci moom jom mooy def ci moom bëgg boppam mooy def ci moom bëgg askanam mooy def ci moom bëgg réewam mooy def ci moom euh, bëgg ay euh, waajuram bu fonkee ay waajuram dana fonk waajuri ñeneen mooy def ci moom yërmaande mooy tax mu mooy tandiku yu bëri ci yi nga xam ne ni xale bu amut yaay bu mel noonu ak sonne bu mel ni nga xam ne ni mu ko am xale boobu noonu mun naa ñàkk a am loolu moo tax bi nga xamee ne dañoo neenal euh, yarab kër neenal euh, sëy te léeg-léeg ñi ngi ko jëndee yoo xam ne dana fekk ne baax na fekk liñ joxe ba jël loolu lii moo ko gën a baax loolu yëpp ay damm-damm la yoo xam ne nii mu ngi am euh, ci àddina bi nga xam ne nii tey moom lañuy dund àddina bi nga xam ne tey ñu ngi koy dund nga xam ne dañu war a préparer yaay ji mu nekk ku baax nekk koo xam ne nii mun naa saytu dégg nga ñi ngi koy yaakaar moom ci mu fànqal àddina ay jafe-jafe yi nga xam ne àddina moom lay toggoo tey waaye tey boo demoo ku la wax ne ku la ku la wax ne ci àddina bi par benn at ci at rek danañ ci jaay lu mat fanweeri million jigéen yoo xam ne nii ci frontières yi lañ leen di jaarale yi jugee Amérique yi jugee amerique latine yi jugee Asie yi jugee feneen dégg nga ay mafia yoo xam ne ci loolu la ñuy liggéey ci àddina bii nga xam ne dañoo wax ne dafa dañ dafa avancé dem nañ ba am na ay mafia yoo xam ne ci loolu la ñuy liggéey ay jigéen mën nañ cee dugg ñu dem ba nga xam ne dañuy nangu passeport am dootu am tànneef ci boppam dootu am tànneef ci kan lay wax ak dootu am tànneef ci kan lay séeg dootu am tànneef ci àddina boo xam ne nag ñoo wax ne tey ñoom ñoo libéré jigéen loolu nag lim ñuy war a jural mooy ñi delluwaat ci yarab lislaam bi nga xam ne ni euh, jox na jigéen gëdd ko bi ko jox màggal na ko teddal na ko jox na ko wàccuwaay bi nga xam ne moom la ko war a jox ba def àjjana mu nekk ci ronam ba def ko mu nekk ki nga xam ne sa xàq xàqam moo gën a rëy xàqi ku nekk xaaj euh, mu niir léegi bi doon jàng euh, discours yi xalifa sanusi bi indi na xadis boobu yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne dafa am ku ñëw ci moom ne ko man awla naasi bi xusni saxbati kan moo gën a xeey ci nit ñi ci man ci ànd ak man mu ne ko ummuka xaala summa man xaala ummuka xaala suma man xaala ummuka xaala summa man xaala summa abuka mu door ko wax ne ko ñetti yoon ku gën a xeey ci nga ànd ak moom mu ne ko sa yaay ak kan mu ne ko sa yaay ba ñetteel yoon bi mu door ba ñeenteel yoon bi mu ne ko ak sa baay ak topp ku gën a xeey ak ku gën a xeey <clears throat> noonu nga gis ne tey jigéen ñi lislaam yi mbooleem activité yi nga xam ne ni jigéen mu ngi ko góor a ngi koy def ci société bi rek yàlla may na jigéen ñi ñi am taxawaay ci loolu julli yi nga xam ne ni mooy li gën a màgg ci lislaam jigéen ñi ci lislaam dañoo amoon seen xàq ci jumaa yi di ko teew comme ni ko góor ñi di téwé ba yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne tamnau ima allahi xuzuzahunna min masajidillahi bu len ayé jéebéer yàlla yi manam jigen ñi ñi jël seen cër ci néegi yàlla yi kon dañ daan dem ci jumaa yi ci waxtu wu nekk ba ci julli fajar ba sayyidatuna aisha radiallahu anha riwaaya na ne yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam كان يصلي الصبح فينصرف النساء متلعفات بمروتهن لا يعرفن من الغلس يونت دان جولي صلى الله عليه وسلم فجر بوي سوبانديكو بو جيجين ني ديغين ني سي جمعه نيغي اندكي سيني آه، ملفا كين دولين خامي ندخ صح لندمي صبغي مانام ستاغوت صح موتاخ داج دان فكي جولي نيوم سيني خالي سيني دومي nga xam ne ci commencement rek ñi ngi ànd ak ñoom ci yar di leen wan lu baax di leen wan yooni néeg yàlla bi tabaraka wa taala ba yonentu sallallahu alayhi wa sallama wax ne daan na julli mu gàttal saaram ngir yërëm jigéen joo xam ne mu ci gannaawam marhaban ñi ngi tatagal sëriñ bi aleykum salaam marhaban bikum mu ne jigéen ñi daanañ dem ci jumaa yi waaye xadis jooju daf lay xamal ne amuñ rek ci daanañ dem ci jumaa yi waaye dañ daan dem ànd ak sax seeni doom yu ndaw yi nga xam ne nii léeg-léeg ñi boot leen ba yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne daan na julli bugg a guddal julleem mu dégg xale boo xam ne nii dafay jooy mu gàttal julleem ngir yërëm ndeyam moo tax bëri na yu xew gannaaw gi euh, donte am na ay masaalix yoo xam ne masaalix mursala waaye am na ay jaaruwaay yoo xam ne uma bi dañ cey jaar mu nekk ay jaaruwaay yoo xam ne euh, euh, xam-xam dafa dellu gannaaw ba nga gis am jamono yoo xam ne nii dañ doon xaraamal sax jigéen ñi dem ci jumaa yi waaye amul yonentu sallallahu alayhi wa sallam mas na aaye jigéen ñi dem ci jumaa yi mas am mas na am xew-xew gu rëy boo xam ne dafa am jigéen joo xam ne dafa génn di dem ci jumaa xaaju guddi fajar am jaam bu yàlla nattu mu dab ko siif ko ci fajar googu ndaw si di oote wallu am ñu ñëw pour wallu si ko ki njëkk a agsi pour wàllu si ko ñi mujj agsi bi ñu agsee jàpp ko ne kii la te fekk du moom bi ñu yóbbee waajooju ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki defoon jëf ji ne dëgg-dëgg du kii man mii la nit ñi di ko xas yonent bi ne déeréet kii tuub na tub goo xam ne juróom-ñaar fukki nit buñ ko tuuboon yàlla jéggal leen waaye li ma bëgg a wax ci loolu mooy ne euh, xew-xew boobu ànd ak lim euh, garaaw garaaw taxut yonent bi sallallahu a wa sallam wax ne jigéen ñi bu leen demati ci jumaa yi ndax jàngukaay la woon te jigéen ñi ci jàng lañ bokkoon ahdaas yu bëri xew-xew yu bëri yoo xam ne nii e, société bi daf koo soxla ba tey ci jumaa yi la doon xew jigéen ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yoo xam ne bi Saïd Xudri moo ko solo ne ko ñun góor ñi dañ ñoo not ci sa jotaay xam-xam dañoo bugg nga defal ñi jotaay boo xam ne dañ ñuy xamal ci li la yàlla xamal yonent bi sallallahu ut leen barab ut leen bés ut barab ma fekk leen foofu ñu ut bés ut barab yonent bi sallallahu alayhi wa di ñëw foofu di leen jàngal foofu am na jigéen joo xam ne Asmaa bint Umays ñi nga xam ne ñoo demoon hijra ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njëkk dem ci Xabasha dafa masa weranteeg Seydina Omar radiallahu anhu Seydina Omar ne ko ñun ñoo leen jiitu ñoo leen njëkk gàddaay ànd ak yonent kon ñoo leen gën a xeey ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ndaw si dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ne ko dégg nga li ma naa Omar wax mu ne ko lu naa Omar wax mu ne ko dafa wax ne ñoom ñoo ñoo gën a xeey ci yow ñoom ñi jiitu ci gàddaay ànd ak yow fii ñëw Medina yonent bi ne ndaw si lan nga wax mu ne ko dama ko wax ne ko nekkoon ngeen ci yonent bi muy lexel seen way xiif dégg nga di jàngal seen wayu réer ñun ñu nekk ci suuf bu sori nekk ak ay tumuraanke ca xabasha loolu yëpp ci yàlla la ñu ñuy lor ci yàlla ñiy tiit ci yàlla kon yéen gënu leen gënuñu ñoo xëy ci yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko laysa bi xaqa bi minkum walahu wa li ashaabihi hijratun wahidatun wala kunna antum ashaabu safinati hijrataani ñoom gënuñ maa xëy ci yéen ndax yéen ñi nga xam ne da ngeen a gàddaayoon jëm xabasha ñaari hijra ngeen am te ñoom ñii benn hijra rek lañ am mu ne abu moussa ndaw si ne gis naa abu moussa ak ñi nga xam ne dañoo bokkoon ci gaal googu demoon gàddaay jëm xabasha ñii wër waxtu wu nekk asmaaw bint amis di laajte xadis jooju nga xam ne ñooñ jigéen ñooñu ak góor ñi nga xam ne fekke woon nañ loolu ab kontaan tuum kontaan gu gën a màgg kontaan googu nga xam ne moom lañ am ci seen bés boobu jigéen ñi dañ daan bokk ci feet yi xadis ju wér mu ngi nii ci saxiix buxaari muy ko buntalee qiyaamul mar'ati ala rijaali fil ursi ki nga xam ne nii e, buxaari solo na ko sahl ibna saad saaidi ne ba mu takkee jabar abu asyad saaidi dafa oo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahabaam yi maanaam éviter leen ci euh, ceetam googu bam leen defalee euh, lekk kenn nekk fa woon di leen séddale lekk gi lu may jabaram moom moo doon séddale loolu kon jigéen ñi daan nañ taxaw taxawaay bu mel noonu daan nañ teew sax ci xazawaat yi di euh, faj ñi nga xam ne nii dañoo feebar ba ummu atiya wax na ne ànd na ci ay xazwa ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mat jurom naari ghazwa yo xamne daf daan def bargenem di len defal ay lek di fajj tim ñi nga xamne ni nii dañoo feebar am na beneen bu ñu wax rafidal al islamiya ba daf daan def bargenem di fajj ñi nga xamne ni ñom ñoo febar ba nga xamne saad biñ ko jame ci uhud ci xandak yunus bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne nañ ko def ci xeyma ndaw suusu ndax mu jege ko mu koy mën a ziyaare loolu yëpp pour wane ne jigéen yi daan nañ def musharaka ci yooyu daan nañ taxaw bokk ci ay liggéey yi nga xam ne nii ay métiers yi ba ndaw si ñee na ñëw na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indil ko burdu boo xam ne nii moo ko ñaw bu defar ko ba mu rafet ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dama la bëgg a solal mu solal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi kontaan ci te mun ko bëgg bi nga xamee ne ndaw si dem na benn waaye rek benn saxaabi yi ñëw na yonentu bi sallallahu alayhi wa damaa bëgg nga may ma mbubb mi ah te fekk yonentu bi demoon na ba oddoo ko sax yonentu bi sallallahu alayhi may ko ko saxaaba yi ne ko li nga def rafetut yow xam nga ne yonentu bi mënta gàntal sallallahu alayhi wa sallam te mbubb mi mu ngi ko bëgg nga dem di ko ko ñaan ba mu jox la ko nii mu ne man tim damaa bëgg rek bu ma dee ñi eh, ñi ñi suulaale ma ak mbub mi nga xam ne moom la ma yonent sallallahu alayhi wa may te bu mu deexee boobu lañ ko suulee jigéen ñëw na ne yonent bi sallallahu alayhi ne ko man sama doom na jaar la maanaam menuisier la dama laa bëgg a defaral bar boo xam ne nii ci ngay toog moo moo defar minbar bi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mujj di toog bàyyi eh, bàqaas yi tàndarma yi nga xam ne ci la doon taxaw ba yonent bi taxawee ci bar bi dañoo dégg gis naxleti bi muy jooy di hikkat ba mel ni ba ba ba mel ni mbote moo xam ne nii ndayam dafa tàggoog moom muy jooy ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wàcc ci min baram bi ñëw tatafu ko ba mel ni xam ne nammeel gi ko gis bi nammu ndax taxu bi mu toxu ci dem ci min bar waaye min bar boobu jigéen moo ñëw ne yonent bi sama doom menuisier la dama laa bëgg a defaral min bar boo xam ne nii ci ngay toog loolu yëpp dafa tegtale ñoom seen taxawaay bi nga xam ne nii moom lañ doon euh, euh, taxaw ci mbollem li nga xamne ni société bi dañ ko soxla yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne adina yeb xewali adina li ci gëna bax moy moy al mar'atu salihatu jigen ju bax mu ne moo gën ci xewali adina yeb xam nga ne ñom ñoy indi dal ci kër yi ñom ñoy indi jàmm ci usra bi ba yàlla wax ne min ayaatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون yàlla bindal na leen ay jabar ci seeni bopp def seen diggante bëggante def ci seen diggante rahma bi nga xam ne ni dana dem sax ba bu mawadda jugee sax rahma boobu dana des te loolu moom moo gën a màgg moom mooy mën a indi tranquillité bi nga xam ne ni usra bi daf koo soxla te loolu mooy tax xale yi yaru ci karaama yaru ci ñi leen di sàmm sàmm bi nga xam ne ni moom lañ xeeyoo di leen jàngal di leen yar di leen wan lu baax ndax yaay moom mooy école bu njëkk bu baaxee rek li ci des yëpp baax moo tax yonent bi sallallahu alayhi ba muy wax ne xayru nisaai rakibna al ibla saalihu nisaai quraysh araahu lil waladi fi sigar wala ahnaahu lil waladi fi sigar wa araahu lil zawji fi zaati liyadi ne jigéen ñëpp ñi war gëlëm ñëpp ñi ci gën mu ne mooy jigéeni Quraysh lu tax mu wax ne ñoo gën mu ne ndax ñoo ëpp yërmaande ci xale bu mu nekkee xale waaye ñoo ëpp tim sàmm ci seen alali jëkkër Abu Hurayrata wax ne ci hadis yooyu mu ne waaye Mariama warut warutoon gëlëm maanaam kon am ñoo xam ne ñu firee ko rek mooy jigéeni arab yi li tax ma indi ko mooy ba mu leen di gënalee dafa wax ne ñoo gën a mën a sàmm xale sàmm xale nag sàmm ko ci dundam sàmm ko ci wéram sàmm ko ci xelam sàmm ko ci njàngam sàmm ko ci taxawaay bi nga xam ne moom la war a am ba nga xam ne bu ëllëgee lu moromam yi mën def ci lu baax ci société mu mu man ko lu moromam yi mën a xam mu xam ko loolu jigéen mooy ki nga xam ne nii moom moo ci njëkk moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam lomb na jigéen joo xam ne dafay nax doomam muy jooy muy dem mu ne ko ñëwal ma may la tàndarma fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu koy gis mu ne ko boo ko joxu tàndarma boobu ñu bindal la ko fen loolu mu ngi xamal ne kooku nga xam ne mooy commencé yar na moytandiku yu ndaw yooyu moytandiku saaga sa xale moytandiku euh, sib ko euh, ndax yi nga koy wax rek bu màggee moom tim loolu lay moom lay commencé fooyee bu génnee loolu lay waxee bu fekkee ne jàpp na ne maire bi mën naa wax lu amut dafay jàpp ne wax lu amul dara nekku ci moo tax yar boobu nga xam ne ci commencement moom la yonent bi sallallahu alayhi doon jàngal ndaw soosu taxaw ci jàngaleeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy li nga xam ne moo ñi may suñu jigéen tey ñi mën a taxaw taxawaay bi ñu war a taxaw ci daawa mën a taxaw taxawaay bi ñu war a taxaw ci société bi mooy tax tim ñi mën a eh, taxaw yëkkati seen bopp ak li ñuy dégg yëpp ak eh, melax yeeg Euh, Occident li ñuy wax dégg nga émancipation de la femme mag dégg nga liberté li ñuy wax nii yëpp nga xam ne boo xamee yow li nga am dëgg-dëgg nga xam ne tey jii nii ñi ngi nii toog euh, ñi gën a mag ci xadara bi euh, cheikh xalifa toog nii imam toog nii kan moo oote sayida aïcha moom moo oote kenn la ci jigéen ñi xadara bi kenn la ci jigéen ñi yari xadra bi loolu dafay wane ne xadra bi ubbi na buntam pour jigéen ñi buuxante comme ni leen bàyyi waxoon ne yaa ayyuhal banaatu zaaxim na ila naylil ula amma bi abdaanin fala waaye boo génnee ci tuuti rek da nga gis ay textes yu rafet yoo xam ne dañ koy wax ci jigéen wax yi ñuy wax yi wax yële dégg nga waaye da nga fekk ne loolu yëpp bu ñu demee ba war koo appliquer danga fekk ne jigéen ñi ñoom ñoo gën a sonn danga fekk ne jigéen kenn waru koo laal waaye tey jii boo demee boo demoon ba Amérique sëy yi juróom ñaar fukk soixante-dix pour cent yëpp dafay tas yu ci bëri bala ñoo tas ak ak boyfriend yi girlfriend yi ni muy tasee mooy xeex ba xaañ xeex ba dóor ba nga xam ne ndaw soosu dañuy utal rek benn place boo xam ne dafay dem ba mucc ñuy égg ka wàcci yar bi nga xam ne jigéen mën na koo yar ci doomam ba def ci moom tolérance def ci moom bëgg boppam def ci moom bëgg mbokkam def ci moom bëgg réewam def ci mom bëgg diiné bëgg ham xam bopam loolu yëpp mën na dimbale xalé ci ci ci ci violence yi nga xamné ni tay mom adina bi yëpp mom moy problème yi nga xamné mom la adina am ndax nit ki fi nga xamné fofu la waroon am fa jamu bu démé ba nga xamné melna ay jikko yo xamné ni nii ta nek ak wa kër gi ku dem ba mëno nek ak sa wa kër kër go mëna nek ak do tud yombu boba nak benn kër rek mom moy am pour bobu moy da fay def lu ko neex rek mu dem am kër gi nga xamné buñ ko mom Euh, dootul génn euh, dañ ko faa yóbbu pour yar ko te mën naa am li des ci àddinaam foofu lay jaaree pour yàqu bi nga xamee ne covid bii ñëw na tey jii xale yi ak jigéen yi yar gën nañoo am ay défi ci seen kanam ay taxadiyaat ay jafe-jafe ay gàllankoor ci yar xale yi ak yóbbu leen ñu jàng ba nga xam ne at bii ñu génnee rek wax nañ ne lu mat quarante millions xale yoo xam ne tardé nañ ci seen heure yi ñu waroon a dem jàngi ak ni ñu waroon a taxawee ci ñoom te loolu yëpp Covid bi moo ko indi ak jafe-jafe yi nga xam ne nii jigéen ñi ñu ngi koy jànkuwanteeg ci xew-xew yooyu nga xam ne mu ngi am ak yeneen xew yi nga xam ne mu ngi am ci àddina bi conflit yi am fële xeex yi am nga xam ne jigéen ñi ñoo ci gën a néew doole bu ko defee yu bëri ci loolu dafay dafay influencer Euh, famille bi te dafay jeexital ci ci ci ci xale yi ci seen dund ak ci seen wér ak ci seen xam xam nañ ne xale boo xam ne nii dafa am euh, jafe ci këram am ay euh, complexe ci boppam kooku lu bari mën naa juddoo ci moom loo xam ne du daal beneen xale moo tax sharia sa dénk ñu sàmm xale yi ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne kafa bil mari isman an yudayya man yaqut doy na nit ki bàkkaat mu sànq ki nga xam ne nii moo ko waroon a dundal wara a sànq nag duur rek ne joxoo ko mu lekk joxoo ko mu naan joxoo ko mu odd mu war a jàng jàngaloo ko mu war a yaru yaroo yaruloo ko mu war a xam xamuloo ko loolu yëpp ci sànq la bokk na xamee ne jigéen ñi yonent bi sallallahu wax ne ne jigéen sàmm la ci néegam jëkkëram te yàlla dana ko laaj caawam te caawa googu xam nañ ne li ci gën a foor gën cee kawe moom mooy doom yi nga xam ne nii ñoom moom mooy seen jàngalekat bi gën a mag te léegi-léegi sax mooy nekk rek moom kenn seen jàngalekat ndax am na dëkk yoo xam ne ba léegi nii xale yi amuñ seen seen seen wàll ci ci jàng amuñ école mënuñoo dem école yar bi seen yaay di def ci ñoom rek moom mooy yar bi nga xam ne nii moom moo leen di gidee ci seen euh, seen commencement yi dundu te loolu bu yàqoo rek commencement bi bu yàqoo rek li ci des mun naa yàqu ma ne dañuy wax ci naka la ñuy def ba jigéen ñi mën a taxaw taxawaay bi ñu war a taxaw pour dindi violence ci àddina bi waaye tey boo xamee ne àddina seen xeex ak seen manante mooy naka la def ba violence yi nga xam ne nii jigéen ñi ñoom ñooy Euh, ñooñ ñoo ci gën a loru naka la àddina di def ba ba mucc ci loolu wax naa sànq ne euh, ci mille neuf euh, mille neuf cent quinze àddina jaay nañ fi fanweeri junne fanweeri millions jigéen yoo xam ne jaay nañ leen ci àddina te diggante Europe ak Amérique Asie la dégg nga mafia yi nga xam ne ni ñoom ñooy taxawal loolu ñooy jaay ñooñu loolu yëpp jigéen ñi ñoo ci ñoo ci gën a ñoo ñoo ci gën a loru te buñ leen dugalee ci yooyu daañ nangu seen i passeport nangu seeni i euh, identité nga xam ne dootuñ moom seen bopp ba nga xam ne at bi ñu génnee rek dañuy wax ne jaay bi nga xam ne ñu ngi koy jaay doomi aadama ba léegi ci kaw àddina 72 pour cent yëpp ay jigéen lañ te ci biir àddina bi lañ leen di jaayee nit ak nit ñoo leen di jaay ay mafia ñoo leen di te ñi leen di jaay tey ñoom ñooy wax ne ñoom ñooy goreel ñoom ñooy goreel àddina loolu doo ko doo ko mën a dégg moo tax mbootaayi xeet yi jël jël nañ ba jël couleur yi orange sax moom lañ jël ci at biñ génnee nga xam ne moom lañuy def pour wane pour pour symbole pour wax na naka la ñuy def ba deux mille trente euh, ak toroxal yi nga xam ne ñu ngi koy toroxal jigéen ci kër ci biir àddina loolu mu jeex ci àddina bi loolu nag daf lay xamal rek ne àddina dëgg-dëgg tur yi moo gën a yaatu euh, da nga fekk ay unwaan ay unwaan yu rëy waaye boo demee ba ci biir da nga fekk ne dara nekku violence ci aduna bi allemagne ci at yi passé ni rek da nga fekk né par at 30000 personnes dañuy xaru bo démé japan da nga fekk né 20000 personnes ci 1980 da fay yok da fay yok dañuy xaru bo démé amérique ci sen école yi beut bu set 130000 pistolet la xale yi di indi aale ci école yi nga xam ne école yooyu nekkuñ ci jàmm at bu li ñuy dóor ci école deux millions deux millions étudiants yoo xam ne bët bu set dañ leen dóor ci école yi lu mat deux cent quatre-vingt mille étudiants yoo xam ne bët bu weer wu jot dañ leen gaañ ñi ñi leen fetal ñi ñu dóor leen ay euh, paaka cinq mille cinq cent jàngalekat yoo xam ne weer wu jot dinañ leen dóor ci école yi ci Amérique lu ëpp vingt deux mille yoo xam ne deux cent dix mille américains yi nga xam ne dañ leen di rey nañ leen ci ci biir loolu ci ci fukki at yooyu rek ci ci fukki at yi ñu génnee 17 million yi nga xam ne ni ñu ngi leen di euh, lor ci àddina bi ci unf ci violence dégg nga da nga fekk ne 70 pour cent yëpp dégg nga ci ay fetal lañ leen di jamee waaye da nga fekk ne quarante pour cent ci violence boobu yëpp di xew ñi koy def mooy ñi nga xam ne nii. dañoo dañoo drogué wu àddina tey euh, bénéfice yi nga xam ne ñiy jaay ay drogue ñi ngi koy am ci biir at dafay toll ci cinq cent millions dollars yoo xam ne ci at nga xam ne réew yu boo xaajee ñetteeli xaaji réew yi bokk ci euh, umam mutahida da nga fekk ne ñoom sax seen budget ci at àggut foofu loolu nag li muy tegtale mooy ne doomi aadama yi bi nga xamee ne ñàkk nañ yar yàkk nañ dégg nga référence boo xam ne ni mun naa jubal doomi aadama nga gis ne doomi adama mu ngi jublu ci dund boo xam ne nii dund xarula mu ngi euh, mu ngi euh, dégg nga defar tàddam te fekk mu ngi dund loolu mooy ñu ngi jaar ci dund boo xam ne dund xaru la loolu nag dara mënu koo delloo si lu may kër dellu si jigéen euh, xam boppam du tere mu jàng du tere mu am du tere mu mën a liggéey waaye li nga xam ne ni moom mooy cosaan euh, muy yar ak jege xale yi ñi ay waajur yoo xam ne dañ leen di jege am fu ñuy dellu loolu buñ ko ñàkkee rek société bi du am jàmm moo tax tey jii nii Euh, liñ wax ne rôle yi jigéen gis nañ kiñ tuddee ziyaara bi muy maam Astou Diankha xam nañ ne lii yëpp euh, jeexit yi Mawlana Cheikh la te jeexit jooju jigéen jooju moom moo nekk ci gannaawam kon la doon maye lu baax démb ba tey moo koy maye suñ valeur yi nga xam ne moom lañ amoon tim démb muy àggale ñu mu man ñoo musal ci yi nga xam ne ñu ngi koy dégg yëpp tey nii ci àddina bi ba léegi valeur yooyu mu ngi valable pour génnee ci ci mboolem mi Eh, jafe-jafe yi nga xam ne nii tey àddina moom la ñuy moom la ñuy moom la ñuy bëgg ndax dem nañ ba ñàkk kër yi mais addina yëpp a ngi géntaat naka la ñuy delloo ci kër yi euh, Nixon ma waxoon ne doomi aadama tey avancé na ba dem ci weer wi waaye tey xamut sax naka lay doxee ci kaw suuf moom ak ay mbokkam loolu nag li ñu ci delloo mooy ñu dellu ci taalim ci jàngati yonent bi salallahu alayhi wa sallama dellu ci alquran dellu ci sunnatu muhammadin salallahu alayhi wa sallama garde liñ am nga xam ne dëgg-dëgg valeur la leneen lu baax luñ mën a am yokk ko ci ñu yokk ko ci waaye duñ ci sànni dara allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim yéenay liggéey fay du baay bi Sidi Barhama Kossy TV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd ak baay yéenay liggéey fay du baay bi Sidi Barhama ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa